nekkatul dara jafe yi déposé caution ngir wàllum loyer ñu fàtte ko bu fekkee ni nag validé nañ proposition wu loi wu docteur Malick Diop wax ni léegi caution yu dañ ko war a déposé fële ca caisse de dépôt de gandikoo ci moom nag mu ngi xamal ni loi boobee dina tax état bu Sénégal am gët ci contrat bi dox ci diggante bailleur bi ak locataire bi. képp koo xam ne locataire nga waxtaan nga ki nga xam ne moom mooy lay loué caution bi état dafa naan lii la bu état ne lii la yow nga jël sa question déposé ko kuréel bu ñu caisse des dépôts de consignation léegi booy génn tamit dinañ xool ak locataire bi su fekkee ne tamit am na def def nga fa loo xam ne am na loo xam ne yàq nga ko fa su fekkee ne dugaloon nga fa benn cinq cent mille xam ne peut-être deux mois la cinq cent mille yooyu xëy na yàq nga loo xam ne mët na boobu état ak kuréel yi nga xam ne ñoo ñoo koy gérer ñooy déterminer ah xëy na ci cinq 500000 yi am na cent mille yoo xam ne dañ koy delloo locataire bi pour mu euh, tamit euh, defaraat li nga xam ne yàqu na foofu 400000 yi ñu delloo la ko. loi boobee itamit mu ngi xamal ni buñ ko validé dina jàppale locataire bi mu am ci logement sociaux yi jóge nag ci locataire ba am yëfu boppam. caisse des dépôts et de consignation. xamee nañ ko defar li ñu naan logement sociaux. ñu ne képp koo xam ne déposé nga caution yow bu fekkee ne dañu séddale ci. wante yooyu wala si logements sociaux yooyu ñu xool naka lañ lay gérer de manière prioritaire maanaam nga bokk ci ñi njëkk a jot ci loolu. bu sukkandikoo ci docteur Malick Diop nag mu ngi xamal ni proposition boobee daal dina koy jagleel njiitum assemblée nationale ci loolee sax daal dina ciy waxtaan ak député yu pouvoir opposition ak non aligné yëpp.